ci diggante Gouye Gui 2 ak Mamady Ndiaye Gouye Gui numéro 2 Mamady Ndiaye eh Mamady jël na Gouye Gui Mamady takk na Gouye Gui Mamady daan na Gouye Gui Mamady daan na Gouye Gui buddi daan yee yee yee Gouye Gui jugal ay mbari bare leen kuy bare da ngay laale baaxu